waaw noonu la demee nag xam nga tey ay adversaire la ñun ñëpp tey bu ñu dajee woon làmb ja tey de mité bien vrai que ñu ngi déggante téléphone ñun ñëpp ñu ngi waxtaan et mais actuellement lii mooy actualité tey mooy Covid 19 bi nga xam ne tey Sénégal yëpp ñu ngi koy xeex monde bi yëpp loolu waral teewaay bi tey ji waaye Yaxya moom xam nga grand frère la ci côté bu ne idool la royukaay la hmm, moom ci social lay dox ku ko xam-xam ko ci lool ba tax na tout le temps ñu ci ginnaawam daal euh, di ko pousser di ko jàppale ci lool euh, euh, comme ni ko ñëpp di dundee ah làqatu moytu noonu la demee waa xam nga nag mbëri maanaam seen entraînement li ci ëpp guddi la te xam nga guddi gi léegi dañ ko tëj xam nga dañuy bàyyi ba bët xaw a set tey si gèrement bi ñu dem ger li ñuy seere waa noonu la demee non xawul yàq gars yi ñu ngi ñu ngi ci combat bi xëy na toogoon doon waxtaan la rek xëy na waxtaan nañu trouvé nañu solution xam nga ñëw nañu daje nañu surtout looloo ci am solo rek mais xam nga ndimal moom du yàq quoi heure bu mu mën a ñëwee rek.